gis nañ nombre de cas yi ci Dakar ni mu bare di yok bëss bu nek kon centre bi buñ leen ko joxee vraiment dana mën a résoudre problème yu bare bare centre bi nak joxe nañ ko joxe nañ itam ben ambulance waye itam ñuy ñaaxaat nit ñi rek ci geste barrière yoy ñuy wax lolo tax ville de Dakar ne fay lancer campagne 1 million de masques 1 million de masques bari na bari wul waye limay ñaan rek moy képp ko xam mën nga indi ay masques dimbalé ñuko ko nga indi ko ñu booleeg li ñu am dugg ci quartier yëpp ànd ak bàjjenu gox yi ànd ak croix rouge ànd ak association de femmes yi ànd ak délégué de quartier yi pour kër gu nekk ñu mën fa dem joxe fa ay masque ñu ñu ñu ñu aar ñu aar mag ñi aar mag ñi mooy xale yi xale yi surtout xale yi xale yi ñooy génn ñooy dem ñooy indi jàngoro bi kon xale yi nañu moytu les jeunes nañu moytu vraiment di dem ak dikk loo xam ne mënoo mënoo ko ñàkk def nga def ko waxuma nag liggéey parce que liggéey moom ñun ay africain lañ mënuñoo tëju ci kër yi il faut ñu dem uti dépense il faut ñu dem lijjanti ji waaye booy dox doxal lu am solo doxal loo xam ne farata la waaye dugg ci kër yi génn fekk fa ay mag ñoo xam ne dara jotu leen ngeen indil leen virus bi loolu baaxul kon nañu góor góorlu bu baax ci geste barrière yi ñu koy fàttali toujours masque bi moom nañu fexe ba bu ñuy génn ci kër yi ñu sol masque di raxas suñuy loxo di éviter aussi faut un rassemblement am nit ñu bari nga ñew dugg. 75 des cas yi nga xamni mom lañu la ci dëkk bi bës bu nekk temps yi fi lay joggé ville de Dakar mën nañu wax ni 77 tamit fi lay joggé donc da fay wone ni lo ci def rek pour xeex ak fièvre bi ya xoxo ndax yaangi dimbalé Sénégal parce que xeex bi suñ ko gañee Dakar mën nañu wax ni dinañ ko gañee Sénégal parce que les ñi ngi changer orientation bi parce que ñi ngi vivre avec le virus waaye les gens la ñu gën soxla la gëna soxla méthode de prévention léegi la ñu war a soxla protéger wu donc ken warul génn sans son masque jamais sans mon masque Lire naa ko légui waaye lolu slogan bu am solo la distanciation physique bi wax deug yalla il faut que nit ñi continuer di ko respecter ci walu prise prise en charge aussi centre bi dinañ ko parce que aujourd'hui meun nañu xaar malade yu bare ci région de Dakar donc li dafa nous vraiment pour jàppale ñu compenser yi nga xamni ay gap la won ci structure yu ñu prise en charge madame le maire ñu les remercier bu au nom de monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale